que moom laata sax ñuy wax ay waxu dialogue ba fay ñëw tey moom wax na moom taxawaayam moom nee na bëggul waxtaan. waxtaan intéressé wu ko. Ah, toog président Macky Sall intéressé wu ko. donc bëgg ñëwaat tey fii nag di taafantaloo waaw diw sax suñ ko doon wax ne ne dum ci dialogue mënul dem dialogue parce que dafa am lu ko dal. loolu moi je pense que c'est un faux débat Ousmane Sonko a montré encore une fois immaturité politique ndax wax nañ ko même guerre yi gën a am solo ci monde bi sax ci ay discussion lay mujjee ak ay dialogue mais moom. dara xewul Sénégal loolu ay waxtaan pour li nga xam ne moom intéressé na ko te war ko mën a sañ a wax parce que wax na ko sànq Abdou Youssou wax na ko dégg nañu président Khalifa Sall ni mu waxee ni mu waxee wax bu boo xam ne li muy wax ci plateau télévision yi li muy wax ci këram mais moom la wax devant le président Macky Sall donc Ousmane Sonko quand même waroon na mën a wane maturité politique am loolu muy wax mu wax ko ci kanam président Macky Sall il n' est pas d' non par ok noonu lay comporté woo à son égard. il le dit partout. mais c' était l' de le dire. Mhm. mais ci commission yi mais am na ay ay commission yi am solo yoo xam ne si mel noonu la nekk mu dem waxee ko foofu su ko waxee mais effectivement après mun na conduire à des mun na conduire à des à des yooyu yëpp mun na nekk donc man personnellement. moom dafa wax ne wuyu jiwul donc de mon point de vue taxawaat fii bugg ñëwaat di taafantaloo li ko dal nii jamono yi te li ko dal moo ko teg boppam peut-être débat bi donc yóbbuguñ foofu danañ ci ñëw après mais moi je dis de claire et nette et précise que loolu mënul nekk justification maintenant nag sànq euh, euh, euh, Youssou wax na ne ñun.